ko garab jege automatique ci nguuru yàlla rek la kooku yàlla ko ko defaloon kon bu fi ñëwee moom soxna soo xam nga maa koy doon a gis tey moom soxna si bi ma koy jox loxo di ko nuyu yooyu xaw ma woon maam bi ma ko joxee loxo di ma waxee mooy kan laa ne war naa ko jox loxo xam nga nuyu jigéen joxu ko loxo maa ngi ciy waxtaan ak papa yi na sànq ci kër gi dafa am ku ñu ko tere ki nga xam ne fukk jigéen nuyu kawari boppam yépp taxaw mu liw kooku la wax ni jox jigéen loxo ku mujjeeku def lu musiba waaye nuyul nuyul fanweeri jigéen ci bëccëg bi te xamoo ki nga jox loxo góor la wala jigéen mi innama al amal bi niyaat waxuma mën nga dem ci rajo ba di weeraate condamné ki nuyu jigéen te jigéen ju la romb boo ko xoolee futti ko ci xoolee kooku moom la yonent bi wax ni bu bëggee ñu muccante nañu soreyeel son nooy bu kii noy yi kii di ko yëg bu kii noy yi kii di ko yëg moo tax madame la le ministre ou madame la ministre xaw ma loolu ci wax maa ngi lay baalu àq jox naa la loxo te jotu mën a xam bu baax je m'incline à vos pieds pour obtenir la grâce. تبارك الله